C'est bon voilà mbokk Samagal TV mbokk internet yi ñu ngi fii ci Fiara mais tey nag euh, instant maa ngi ci parti volaille bi euh, ñëw daje fekk nit boo xam ne macha allah dama dem ba gàm bi dégg turam yàlla def euh, ma daje fekk moom tey mu nekk satisfaction ak mbégte kilifa gi jaar naa la. ñu ngi dolli sëñ bi. tur bi tur bi Bokar la. gars yi naan ma gars yi assemblée. ah waaw éleveurs yi mag yi noonu lañ ma xamee. macha allah waaw. Eh, dama demoon Gambie seeti Ndiaka. may wax ci yow. Eh, ci ay lapin eh, macha allah yoo xam ne ñu ngi koy exporté di ko indi. tey ma ñëw fekk la fii nga def exposition bu rafet est ce que mën nga ñu wax tey établissement bi nan la tëddee. dëgg la waaw ñu ngi nuyu suñu mbokk yooyu. ñoom Ndiaga ñi nekk Gambie. ak waa Côte d'Ivoire. waa Mauritanie. waa Algérie ah, ak waa Maroc ñu ngi leen di siyaar bu baax di wax ni ñun de ay taalibe lañu yàlla yombalal ñu yëf yi ñu koy def defe naa ren lay def at te wax dëgg yàlla dëkk yooyu ñu tudd yëpp yóbbu nañ fa ay sujet ci waaw ci un yi ren nag suñu mbokk éleveur wu senegal yi wax il foog ñu def stand ñu ne leen duñ ko ñàkk mën a def ñu bàyyi lu ñu doon def yëpp ñëw def stand bi nii ànd seeg suñu rakk ndax man maa ngi ba Paris mais lépp lu may indi comme sujet jëm ci dëkk yi ma tudd yëpp moom mi moo koy wàcce waaw bu ko wàccee mooy def livraison bi. Uh-huh. Euh, daanaka dëkk yi ma lim yëpp. ok sujet yi lay jaar mooy def lépp. ah d'accord waaw. Idi la tudd euh, la. waaw ñu ngi lay siyaar yaaram. maa ñëw ci yow. tey euh, lan moo la may. idée bi. Euh, dafa ñëw ci yow naturellement wala fekk quelque chose boo xam ni. dafa nekkoon ci yow depuis waaw daanaka man sa pap éleveur la. waaw affaire bi nag yàlla def mu nekk ci ñun. balaa may dem ci dëkku nasaraan si.

andi nañ ko Sénégal te mosul dugg Sénégal. ok waaw mais loolu noonu day euh, ba nga koy def. dafa fekk nga am expérience lan moo la mayoon. ne lii boo ko defee na réussir wala da nga ko def rek par passion. waaw dama xool xalaat lan laa mën a jàppale sama gars yi ndax bu ñu waxee damay dem salon de l' agriculture. fekk délégation Sénégal ñëw. waaw ax lu xar su ñu ñëwee ma xool leen xam ni xar bii mënuma ko fi andi.

ah mauritanie de ko ci wax gay allo bokkar ah, ah, wa dina la ne waji mom ya xet kan, gay indi ci lapin rek nga yam wala yena yena gay wa damay andi pigeon mondan di andi ay pitch di andi ay lapin di andi lepp lo xalat comme anima ah, animaux vivants mon na ka andi andi na ci lu bari waye lapin ci lama gay gëna ragné digënté daw ak ren ndax andi nañ ci plus de 900 lapins waaw daw ak ren te race boo tudd tey ci lapin andi nañ ko fi ba race yi nga xam ne daal amu fi woon gars yi wax ma ko dem nañ jëli ji ko jaayante ci bu baax ba mu dugg Sénégal waaw. kon euh, ci wàllu ornement rek wala. waaw fi mu ne nii ci wàllu ornement mais ren gars yi seet si woon nañ ma pour ñu def ci wàllu chair ma commencé si woon bay sama waar waaye li ñuy wax rek xam nga ay nit dañuy ànd des Euh, seen i vision du bokk waaye bu ñu sexee ci la ñuy gën a am gis-gis bu gën a sori donc gars yi commencé woon nañu indi chaire bi ñu waxtaanoon ci ak ñi nga xam ne ñoom dañ cee yëngu bu baax a baax def ci xalaat euh, ñoom indi nañ ci euh, tuuti waaw man nee naa leen déwén dinaa ci indi lu bare bare bare ba nga xam ne ah, du doon prestige kese dinañ def chaire dimbali nit ñi. ci yàpp lapin ndax euh, yeneen réew yi ñu ngi ci liggéey bu baax a baax incha allah. Idi. waaw yaram jaar naa la. ñu ngi lay màggal Fall. yow damay yow moom damay dugg yow directement. waaw nga présenté ma sujet maa ngi nii ci ben lapin bu weex waaw bi mooy engrais. xanaa kii moom mu ngi fi doog ñëw. waaw maal bi mu ngi fi door <laughs> bi euh, mu ngi jógee ci champion Allemagne ci la bokk. engrais bi. grand bi moo ngi koy door a importé bii bi mosaguñ ko fee gis quoi waaw ku ñëw moom da koy demandé waaw muy engrais bu doy waar waaw waaw bii Jean de Transylvanie la waaw Jean bi tamit mu ngi fi door a ñëw muy Jean bu doy waar moom it uh-huh. waaw gars yi fu mu toll ku ñëw moom it dina ko laajte quoi parce que waaw bii mooy deuxième fois ñu koy importé uh. waaw macha allah waaw moom macha allah oh, oh, manon bi waaw bii mooy néo rouge néo zélandais quoi waaw moom mooy néo fauve quoi Ah, waaw waaw néew néew waaw moom néew néew zélande la quoi. ok waaw moom ci race almaañ allah waaw moom macha allah. Ah, la wala. waaw couple la. couple ana benn couple bi. waaw ah, beneen couple bi beneen femelle beneen ci suuf. bu njëkk bi tam couple waaw bi non bi ñaari maal lañ ci andi. waaw mais indi leen ay couple bëgg mu bari ci réew mi. ana jigéen bi. waaw bëgg nañ ko andi nag nañ ko andi bu soobee yàlla. grand andi nañ si couple. dafa am ku ko jënd boo déggee murit mooy lapin bi ngay gis ci affiche bi. ñu jaayee ko un million. couple bi bi. ki ko jënd Samba bëggul ñu wone ka ñaan naa ko ba sonn mais lapin moo doy waar lapin dafa gaaw a daanu ma comprendre ko. ndax lapin yi ku ko xam dëgg. mën nga ko jënd léegi yóbbu ko sa kër léegi mu daanu léegi. am naa benn xarit boobu macha allah ñu koy wax euh, mu ngi yéen. yéen da loolu daloon na ko. importé woon na lu plus de vingt lapin. mu loolu dal ko. waaw xam nga lapin dafay mala boo xam ne dafa gaaw a stressé. ay lamb-lamb yu bare. te buñ leen di jëli. Uh-huh. comme ni ma la ko waxee léegi géants yi xoolal nga jëlee leen 2000 kilomètres. Uh-huh. cest dire ñu daw journée. Uh-huh. coono googu ñu daj. nga wàcce leen dugal leen ci ay kees ñu yëg avion ñëw Sénégal rek gars yi jàpp di nab nabbee. waaw. loolu baaxul ci lapin. dama dama rappelé wu ba ma demee Gambie di def émission bi. waaw mais saa waay fu ma dugg mu ne ma raxasul ma ne ma ne kii seexlu ko mais après laa comprendre. waaw fu dugg mu ne ma nettoyé tànk bi tànk yi sax. ah fomp ba mu set lapin dafa set. waaw lapin dafa set. waaw na leen contaminer quoi. mën na leen contaminer voilà macha allah ñu àggale. waaw gannaaw bii bala. waaw ah, bii petit papillon la petit papillon français la. Uh-huh. moom it français ñoo ko créé quoi. bii nii waaw am na grand papillon. bii uh-huh. papillon quoi. ok mais bii petit papillon bii petit bële ci digg bi ñaari yëf digg bi. Ah, bii rex tricolore la. bële na la moom it rex la rex fauve la quoi. demal ah, waaw bii rex tricolore la mâle la. Uh-huh. bii rex fauve ah, la. waaw macha allah bii la quoi. waaw yii kaw bii. ah bi néew la comme néew rouge bi moo la woon. bi mooy blanc bi quoi. ok am na paire moom. couple la. couple la waaw couple la. bi femelle bi am na femelle bu tëdd na la ci biir. macha allah waaw beneen ak ngële am naa ci deux couple quoi. Uh-huh. waaw. yéen ci ay nee la ay nee ploné la quoi. ok nee ploné yee nekk nii. ok waaw bee ngay gis bee di wokkatu nee. macha allah waaw la champagne la. bu ma bi argenté de champagne macha allah. bii rek sinchila la. bu noir bi ah. rek. sinchila. macha allah ah, yëpp am nañ fi seen i paire. nañ bari ci réew mi daal. ah bii jaar la tudd. bii jaar bii tëdd nii mooy jaar. oh macha allah. ok léegi daal yeneen yi même yi ngeen def fii wala. Ah, non, non. Bini ngay gis mom mom ki la quoi. Rex la. Okay. Mais Rouen la quoi. Ah Rex Rouen la. Okay. Ah bi argenté le champagne. Li ni? Wa ah, mon coupe la. Argenté le champagne. Ko bi ko? Wala jaru bi? Si, ah bien sûr, mon nako bi. Wa xol bu baax. Voilà. Ma Allah. Ah, ya. Oh, très joli. gris garenne bi quoi. ok champ de plante la. ok bii femelle la. ok waaw bii aussi la. waaw champ de plante gris garenne. ok waaw après na peese yëpp voilà. bii mooy seen bii bi. ok nekk nii quoi. bii mooy mâle bi waaw ana ana femelle moom femelle femelle bee nekk nii. bii mooy femelle bi waaw ñaari la quoi. waaw léegi bii mooy seen mâle ñoom. moom la ñuy wax trio quoi. léegi moom moo war ñaari femelle yi. waaw mooy tëb ñaari femelle yi. jaajëf voilà léegi bii ba tey bokk na ak champ yooyu. waaw ah. bii bi moom la ñu la amoon sànq. ok bi aussi maal la. maal la waaw waaw. ok am ci importation yi moom dafa xaw a jafe quoi. macha allah. ne la ci kaw moom it moom la Transylvanie la. Transylvanie macha allah. bi tamit moom mooy comme moo la woonoon. ok poof bi néew poof bi. ok waaw yële ay nee la. ay nee ah yii. nee waaw nee bu la. ok. ok. bii ban la bii bii mooy. bi la tam même chose moo nekk. waaw waaw waaw mooy ñu mooy ñaari maal yi ngay wax. mooy ñaari maal yi ma lay wax. ok macha allah. Ah, ha, suka. Like ni furby. Yeah, I fur Okay. Berubah. Anne fur. Masya Allah. Uh, Anu ka. Masya Allah. Abu turun arwi, kalau lagi solo turun arwi, lu turun arwi. Anu? Uh, lu turun arwi. Kaya mau lo kemungkinan apa dah? Okay. okay. ah macha allah. place nu mu bi gisoon seen yaram mooy rex yi quoi. yaram yi quoi yaram yi mel mooy mooy mooy waaw. moom père la tamit. waaw couple la couple la la. jaajëf waaw jaajëf Fass. kontaan nañ nekk ci jàmm yow laa ñëw waaw béréb ba Thiès la. Thiès incha allah saa yoo pare rek boo ñëwee Thiès cité Senghor laa dëkkee. waaw waaw jaajëfal kontaan ci yow yàlla na yàlla fay la ca kaw mbokk Samagal TV gis nga tey euh, maa ngi fii nag euh, ci waa Akhlou Lapin ni koy waxee tey nag euh, maa ngi def clôture émission bi fii waaye kilifa gi kon ni taxawaay bi lan moo ko waral waaw li ko waral mooy mbooloo mi nga gis ñëpp ay éleveur lapin lañ mhm. xeex bi ñoo ci jàpp bu baax a baax a baax booloo nag daf stand bi ànd ak man ne yaa ngi fële ñun ñu ngi fii lépp loo def doo ko rëccu te rëccuwuma ci lenn ba ma leen gisee dama bëgg te ñoom ñëpp par WhatsApp laa lay wax ak ñoom. Ah, wax dëgg yàlla bi ma ñëwee Sénégal. dama sant yàlla bu baax a baax di leen wax ni nag lu ñu mënoon danañ koy yokk pour ak lu lapin gars yi dégg leen bu baax a baax waaw ñu jaajëfal ñëpp di bëgg rek ñoom it ñu sànni seen ah ma yow eh, njaga moom ah, moom gambi gambi waa gambi njaga maa lay nuy man yow laa defal émission gambi tey nga doon tudd turam ba yàlla dajal ñëwaat fii tey par hasard tey lan ngay wax waaw ma ngi lay ma ngi lay fay di bëgge ci bés bi waaw kontaan rek comme ni ko bokkar waxee waaw daje bi fii daje dajeek mbokki éleveurs yi rek waaw leneen la xamante bi rek ñëpp dañ war a xamante ndax dañ bokk lu ñuy def bëgg ko soo xamante bi rek jëm kanam la waaw di si sant yàlla di ñaan yàlla jàppale lañu si mu dem ci kanam daal waaw jërëjëf kontaan euh, sama gars yi tey lan ngeen mën a wax ci mbirum lapin euh, na kenn jël kàddu ak taxawaayu grand bi. ah dañu jox suñu jëwrin bi mu mu jëwrin ñëwal ibit affaire bi. salaamaaleykum wa rahmatulah monsieur Badji Cheytaan yow loo soxla woon xam. di laaj rek euh, taxawaay bi nii ngeen def nii. Ah, taxawaay ci liggéey bi ngeen liggéey ci wàllu lapin ak tey grand bi li ngeen li mu exposé fii ak li mu wax li ngeen wax ko doxalee. yéen waaw waaw ñun daal ñooy ëxlu lapin maam mm, ku nekkee représenté ñëpp ci wàllu butin boo xoolee bëri nañ fi sandi yi ñun ñëpp benn lañ maam dañoo ñëw pour wane suñu bopp ñun waa lapin ñu gën ñoo xam gën a xam tamit dayoo lapin ndax euh, Sénégal day gis lëg nii rek wante xam ko jox ko cër bi ci waar wante lëg tol na foo xam ne nii bu ko Sénégalais yi xamoon ah, danañ ci gën a dugg ndax ci côté emploi maanaam lu am solo loo xam ne mën na créer emploi au niveau des jeunes yi nii eh, ndax yaram méttiwu te espace bi muy soxla bëriwul te ci at mi mën nga ci ci benn lëg mën na la may ci at mi 48 lapin benn ah, te espace bi muy jël du jëmaat un mètre 1 mètre carré ñu def ko cage tegle. par kañ lay jur. par un mois lay jur. mun na lay jural weer bu ne. wante duñ ko def ndax dañ koy noppal dañuy espacer affaire yi. Ah, pour que mu bañ son sonn torop. Mhm. mais weer bu ne mun na la jural ci at yëpp day doon douze mois mais ñun nañ koy def ba mu doon quatre fois. waaw loolu benn affaire aspect technique la woon rek pour présenter lépp mais ñun nag ñoo ñooy waa ëllu lapin. Ah.

waaw ak concours tamit parce que déwén bëgg nañ concours xar yee ñu bokk ci tamit ndax barinañ nañ ay races yoo xam ne am nañ représentant association race bu ci nekk feeñee nañ fa teg suñ taal bu soobee yàlla bay bañu séentuñu hmm. race bu ci nekk groupe am dinañ défilé def suñ concours loolu déwén incha allah nañ ñu ko bàyyi xel xoolal moo tax ñu defar livret bi hmm. pour ñi nga xam ne visiteurs yi uh-huh. ak tamit éleveurs yi dinañ leen xamal lapin bu ci ne uh-huh. dafa am nu mu war a toll

par exemple leneen général un ñun le 6 5 kg 500. minimum minimum mën na dem ba 12 kg. mais niñ ci tàmm dañ la ko fi défal euh ni échelle de poids 5 kg, 500 ba 7 kg, 9 points boo mais 7 kg plus. maam lépp loo xam ne mën na euh, mën na tax ñu def concours am nañ ko. d'accord mais ñëpp kenn xam ñun doo ko xam loolu nag lañ bëgg a dindi moo waroon ñu créer focus seen bi foire des cuniculteurs du Sénégal mais dañ fay bëgg a jaare tamit dafa benn fédération boo xam dinañu représenter ci côté autorité ndax autorité seetaan nañu ci wàllu bëri côté garab amuñu euh, kenn jàppale wuñu VHD bi jaar na fi ravagé cheptel lapin yëpp boo seetloo koñ yi da nga ci daan gis ay lapin ci kër yi est-ce que gisati nga loolu moo ko fi VHD feebar la boo xam ne vaccination rek moo ko mën a faj moo ko moo la ci mën a musal vaccin yi amul Sénégal ba nii may wax ak yow amul Sénégal dañu mujj importer wut ay importateur ñu indil ñu ko suñu bopp suñu moyen bopp te loolu du yoon ci élevage bi lañ bokk campagne yi dañ cee war a bokk ndax euh, élevage de lapin ci côté ndawal yàpp bu ko gën amul viande blanche da moo ganaar ñoo bokk xeet te moo gën ganaar boo xoolee ay données dina bokk ci lii nii. macha la ci jox après bu paree bu soobee yàlla. benn demee nga gës ko jàpp la ay njëriñam. macha allah ko gën amul. jàpp bu sel la bu baax la temps bi muy soxla bëriwut. macha allah te seen mais a laaj. est-ce hmm. waa Lapin. a ngi préparé bés boo xam ni. waaw parce que Lapin yi ni fi ñu nekk nii xam boo xam ne. waaw dañu koy def Lol est ce que loolu gis nga bañ koy door di ko teg pour loolu lañ ko bëggoon loolu lañ bëggoon def def boo xam ne suñu bésu bopp la ñuy jël suñu espace bopp teg fa lépp luñ lapin boo xam ne nii Sénégal façon bu ci ne mais ñu ni comme dañ koo bëgg a lancé te xamaguñu. te fiara bi benn date la bu existé. te mu ngi ñëw nañ commencé fii. mais mi yéen yéen lii mooy tàmbali mooy demarage bi lii mooy boo seetloo dina am ay yeneen édition yoo xam ne ñooy fixé suñu bopp def suñu espace bopp. mais fii dinañ fasanteeg ñoom concours kóllëre. non kii kay demee loolu. wante nag bu boobaa ñoom dinañ nañ jàpp ci bagage ndax seer na. stand yi seer na gis nga li ñu ji lu seer la ñu dikkee duñ ko wax. nañ ci jàpp état bi jàpp ci ndax élevage bii nii njëriñ la ci senegal bu ngeen amut dinañ leen ko xamal nag fépp fu ñu dem. jërëjëf jërë ngeen jëf. yàpp lapin bi mii nii gis nga bii dañ ko defar ba pare découpé buñ la ko toggaloon nii de gisoo ko bi benn lapin la te da koy am na yu ko ah, macha allah ah, lapin am nañ suuf am na yu ko ëpp. ah gis nga mais nag ci côté ndawal comme la comme ganaar la ndax temps lay néew comme poulet de chair moom dañ day màgg jël temps màgg.

di la gërëm. parce que ñun waa axlu lëg. géej la ñu bëgg. parce que soo xoolee du ñu Sénégal. lenn dong moo fi ëpp doole muy laadum. waaw ñu dañoo bëgg fu waa laadum taxawee ak côté. ñu taxaw ak côté. waaw loolu la ñuy ñaan yàlla donc di ñaan tamit. Ah gars yi jàppale ñu bu baax baax baax. parce que tamit ñu ngi wax am na leen lu gën a am solo loo xam ne. xaw ma est-ce que grand boo wax na ko muy importation bi. waaw na trop. métti na trop. tey le prix du lapin doit accessible. pour loolu mën a nekk il faut gars yi jàpp si pour que grand boo ko moins mu mën a yomb. daal loolu la ñuy jàpp loolu la ñuy tëjee affaire bi. gars yi jàpp bu baax a baax a baax a baax. salaamaaleykum. waaw jërëjëf. ñuy gërëmaat ñëpp. di sant famille bi. gars yi famille yi. soxna yi xale yi rakk yeeg mag ñi ñëpp a ci jàpp. waaw ma leen di jaajëfal bu baax di leen wax ba déwén dinañ def stand bu gën a rafet bi andi ay lapin itam yu gaa yi mësul gis. jërëjëf waaye jox na ma numéro senegal xaw ma ba xam dafa am yow numéro Europe boo xam ne ku bëgg a lapin mën nañu fa contrater ou pas. waaw sama numéro Europe 0033 769. 04 non 47 06 64. waaw kooku ku ma ci woo wala numéro UDI ko ci woo bépp commande boo def lapin fu mu mënti nekk. dinañ fexe nga jot ci incha allah. nga ñëw Thiès. waaw ñëw leen seet suñu incha allah di ngeen kontaan jërëjëf jàmm.